Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, le Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. bi fi ñëwee daaw am na lu ñuy wax. te li nga wax ne am solo la danga nga ne fii war nañ ko toppatoo muy dëgg ndax fii ku fi nekkul tam sa waay mu ngi fi te ni ku nekk da nga xalaat ne bés bu nekk de bés dina xëy nga am lu mel nii donc nag foo xam ne fa nga jëm wala sa nit a fa nekk war nga ko war nga sàmmanteeg moom lu gën a rafet. loolu moo tax d'ailleurs yi nga xam ne doon na fi xew ñu gis si mbir cimetière yi am ñuy dugg foofu dafa def naka sul du noonu te xamuñ lu tax ñu def ko ñu ngi ñaan yàlla jéggal leen wala yàlla gindi leen ba génne seen xol su mel noonu. ndax nag euh, ki nga xam ne dafa tëdd foofu mënalul boppam dara ah, nit boo buy ñëw di def foofu dara defe naa ne loolu nattu weesuwul loolu donc ñu ngi ñaan yàlla gindi leen ba musal leen sulu musiba bi ànd ak loolu waaye nag euh, buñ gannaaw buñ ko ñaanee dañ see war a jël ay mutuwaay te mutuwaay yi maire nee na ma dina jël benn gardien boo xam ne fii lañ koy teg loolu dina si jokkoo ak yow xam naa yéen a si diisoo kooku mairie moo koy fay waxoon na sax ne fii dañ ko mën a jàppee comme quartier comme nag comme quartier la ndax quartier ñi ñi waaye dawlu yi la war na am koo xam ne dafay responsabilité quartier boobu ñu jëflante ak moom loo xam ne dina tax mu sawar yore ko ñu mu gën a war si wàllu sécurité si wàllu entretien ak si wàllu bu munti doon waaye ñaareel bitam mooy fii mu nga commencé xat wala bu ma ne xat na ni mu mel si cimetière chrétien yi noonu la mel si cimetière musulman yi te nag waruñu tam di toog rek xool bërëb boo xam ne melul nu mu war a mel ñu tànn ne fii lañ fi war a dem yóbbu nit ñi foofu mel ni alors que ñi ñu fay yóbbu mooy ñi ñu gën a fonk mooy ñun suñu bopp ndax tey ku fi munti doon ku sa waa waajur wàññeeku balaa suba wala balaa une semaine nga ut foo ko tëral te fi nga koy tëral nag bu dee sa doom la sa jabar la sa rakk la te du jaas ñoon rek lay doon sa xarit sa mbokk sa doom sa kilifa moom mooy mooy mujj moom ngay mujjee gunge ji bu doon sa sago fi nga koy gunge di ko fa tëral te yaakaar ne mën na am sax yow nga ñëw tëdd si wetam mu nekk bërëb bu sell bu jekk bu rafet bu méngoo ak ñoom ñi fi nekkoon te ñu jiituñu lu seen jikko ñu amoon démb ak barke démb. parce que ñi fi nekk si cimetière bi ñu leen fii tey seetlu am ñoo xam ne joué nañu seen rôle bu rafet rafet rafet si seen dund si wàllu njaboot gi wala si wàllu réew mi wala si wàllu diine yi wala si wàllu bu munti doon ñooñu nag kenn waru leen a sàggale ba tax na maire wax na ko en rapport avec yéen dañu xool beneen bërëb bërëb bi ñu jàppoon ak yéen nee na euh, sotti na dina koy wax duñ ko wax fii yow yaay kilifa gi dañ ko jokkoo yow nuñ ko lijjantee euh, ba ñu teg ko sa loxo loolu tamit euh, noonu la mel si li nga xam ne mooy si wàllu si matière jullit yi fi ma jeexale nag mooy wax naa ko di la dénkaat soxla ñëpp ngeen ñaanaluñ ndax nee nañu nit ki gëm ngànnaayam bi gën a wér mooy ñaan. mën na am pexe mun na am lu mu ci doon waaye balaa moo dugg dina ñaan si li mu gëm donc ngànnaayam bi mu gën a wóolu mooy ñaan te nag ñun tam comme ay way waa gëm way gëm lañu xam nañ ne lépp loo yàlla sotti lu du sotti te yéen nag suñu digganteek moom ñu ngi ñaan ngeen ñaanal ñu yow ak mbooleem nattandoo euh, ba si monseigneur Benjamin Ndiaye ak mbooleem kilifa yi si àddina bi ba si si pap bi ak ñi mu àndal yëpp si njàngu bi ngeen ñaanal ñu ndax li nga xam ne moom la ñu bëgg si àddina bi bëgg ko si réew mi bugg Sénégal ñu am ko li si jiitu nag mooy jàmm ndax